mais yow dégg nga fi may woy da ngay déranger yi nag da ngaa mën a woy je dérange pas da a woy je dérange mais bëgg mooy yombul man fan si ñoo may bëgg déggoo ma ne la xam nga ñooy bëgg caat ay ay Malle Mbay ay Moussa Yaay Joor ah ay ay ay ñoom Waly Seck mm-hmm. ay Ndongolo ñooñu ñooñu ma bëgg te ñooñu bu may woy ñu ne kii fan lay woy fan la mais ma ñëw bëf la Sele Mbaye yàgg na ma ko wax Sele Mbaye yàlla baal mu ne ma bàyyil boof bi dama ko toog liggéey bàyyil sa dérange yaa ngi dérangé de. Ah, te dëgg la ah. dëgg la mm-hmm. parce que gars laa ragal tamit tamit. non du question ragal sax yow sekk waa léegi man dama dugg ah. dama fenn bañ may wàcceeg ak di ma bëmax ak di ma bëmax ak yooyu du ma ko defati. Mm-hmm. mais soirée waa li ngay dem kenn du la bëmax woykat ya bari fu mu ne ana ma dugg si mu ne wo na caat ñëw doo dem ci kooku foo jëm feneen mm-hmm. kooku ñëw ci yow fekk si la pare indaalaw te jox la mm-hmm. ngay waane di dem si rek kii ak jaanaa yaa de yow demal feneen laaj ma leneen man maa tooñ sama bopp waay wallaay ndeysaan eh, car dafa baax nag wax dëgg eh, te te dama yàgg di wax ni eh, artistes yi ñëpp benn lañ wax dëgg artistes yi ñëpp benn lañ te balaa nga koy xam sax lu lu naqari am yàlla na yàlla na yeex ndax ñoom ñëpp dañuy demalante ñoom coow lee fi ne rek ak fan mais Zeyna maa ngi nuyu tamit maa ngi nuyu El Hadj Keita El Hadj Keita suma frère la moom fu ñu daje bàyyi xam nga tax ma bëgg ko dégg dama ko doon seetaan dama koy déglu ndax li muy woy dafa neex mhm. dafa neex a déglu El Hadj Keita ku baax la déggoo ma naan kaan kii ñëwaat moo am problème hmm? waaye daa mel ne yow yëf yi yéegal nga ko de non El Hadj suma rakk la eh, suma man petit la si man kooku xale la waaw woykat la yàlla na ko yàlla dafa jaam baatam wér El Hadj moom daf ma bëgg mhm. gis nga kii man day bëgg moroomu nawleem man dama koo bëgg ndax mhm. daa mën a way ku man da ngay bëgg san moroomu nawle mhm. mais nañ bëggante te muy dëgg surtout mais car ree la siiñ la fekk noo du dëgg man dama tuma si soirée kenn man daal di ngeen ma dimbale ah, doy na c'est conné c'est conné dama tuma soirée kenn barke alaaji ji xam nga tax man dootuma ne soirée xam nga tax li may wax ne lu garaaw laay wax. non man dend ak Fanta mii teg ko sama tànk yi moo koy bësal. déedéet kay. man ne fii naa damay def soirée nit ñi. di xaar sama soirée tamit maa ngi tëgg tout temps. Mhm. wala ma jege Xadi Mbaye. Mhm. lu may di soirée kenn. Mhm. du ma toog sama kër gee teg gerte kenn mu ñu at Fanta ataayam. su ma waree tëggi jug dig dam tëggi. Ah, su ma namee waali dem ci waali. mariage yi may sa biigi yow c'est pas possible. Euh, ñu may xamal sax ni ni euh, incha euh, day ñëw day na bi waali waali balaa waali xëcc nga ko ba mu teng sa jëkkër xiiful maarul eh waali xëcc nga ko ba mu teng sa jabar xiiful maarul waaye raxas nga say koog ba loosoon bi man ko naan aawo soxna dara yaay aawo waaye Fanta Mbaye mooy aawo fii ñii fi ñu doon dugg neex na ma de. way bi mu woy sëñ way bi mu woy sëñ Fallou noonu. boo ma ko mayoon nii tuuti nii neex na ma de ndax waali day ñëw woyal na bi may ma boobu rek tuuti. Cheikh Abdou waay. ndeysaan. Seen maama lak marame sin mama demoon géej lak marame yi sag saar waaw waaw waaw demoon géej ba lak marame lay ndeysaan mooy ndaanaan du ma ci ñi la li ma warte woo